tey lu muy wone ne que président de la république Macky Sall dafa bëgg suñu armée ñu dote leen ay équipement moderne mën nañu fàttaliku que lu jëm ci formation lu jëm ci équipement lu jëm tamit ci infrastructure ak li nga xam ne lu jëm ci aussi amélioration nekkin soldats yi def na ci lu bare tey jii dañuy réceptionner type d'avion yi ña xam ne ñu ngi koy tudd Mi 35 ñeent ak Mi 17 ñaar six avions juróom-benn avion lu ñuy réceptionner tey fu ñu jógee fu sore la dañuy def révision générale maanaam dafa mel ni ay avion yu bees mais li gën am solo tey c'est que tey que tey tey tey lu gën a am solo dañu am benn avion bi nga xam ne ñu ngi koy tudd Casa 295 avion bu moderne la avion bi nga xam ne dafa am capacité def lu bare ndax ñu ngi koy tudd avion multifonctionnel loolu ñu ngi koy rafetlu di féliciter le général de corps d'armée Cheikh wat ak le général de de division Sarr Souleymane Sarr ñi nga xam ne def nañu lépp pour que réception bi ñu mën a ko def tey ci seen fête patronale mooy fête armée de l'air mbégte bu rëy lañ fi jëlee. te ak xel bu dal ndax xam nañu suñu armée am na ay équipement ñi nga xam ne dinañ tax lu jëm ci li nga xam ne mooy suñu souveraineté terrestre ak suñu souveraineté aérienne ak suñu souveraineté matérielle mën nañ ko assurer loolu laa leen bëggoon wax di féliciter ñi nga xam ne ñoo fi nekk sama wet mooy le haut commandement de l'armée sénégalaise mais di remercier le président de la république chef suprême des armées Macky Sall pour intérêt bi nga xam ne loolu la am ci suñu armée